رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينوى مجموعة أكاديمية التصوف seenub taalibe Mafary Ndiaye mooy nuyu نيب دي زيار نيب di nuyu njiitul daara ji kilifa yi ku ci mel ne Cheikh Kama ak asaatisa yi nekk ci biir yëpp ci mel ne oustaz Khadim Bousso ak imam Idris ak oustaz Malick Mbaye ak oustaz euh, Cheikh Omar Mbacke Qasim ak Cheikh Ibrahima Khalil ak Cheikh Mouhamadou Nil Mourtada Mbacke ak mboolem asatisa yi nga xam ne ñi ngi jàllale dars ci biir daar ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di nuyu mbokk yi baax yi ci biir daar ji yëpp nga xam ne ñi ngi topp ak saytu liggéey bi lu mel ne sëñ Modou Mbacké ci liggéey bu am solo bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye itam di jaajëfal si Abdoul Hakim Samb moom itam di borom xam-xam di faqi di faradi bu mag a mag nekk ci biir daara ji ñu ngi koy ziar moom itam su ko defee fas yéene ñëw ci seen darsu tey ji ci xam-xamu ñi nga àndoon ak yéen teer bi ñu defee texte boobu ñu dugal mooy suñ darsu tey incha allah ñoo war a jàng mbirum baay naka la war a donne ci miraas su ko defee ñu ne axwaalul abi lii mooy baay wal jaddi ak maam bu góor min jihatihi ci wàllu baay baay naka lay donne moom la ñuy jàng ci bunt bi waaye bunt bi itam dana ci jàngale maam bu góor ci wàllu baay ndax maam bu góor ci wàllu yaay du donn moo tax mu préciser ne maam bu góor ci wàllu baay xaasilu aji aji aji ami la nga xam ne warada rot na lil abi ñeel bàyyi min xaalin ci ay mbir xamsatu axwaalin juróom benn mbir la fa xaakaxa na nga leen jàpp tuadu yoo xam ne def na leen lim mu ne daal anam yi nga xam ne dana ko doon ne ci wàllu miraas juróomi anam rek la baay di donne ci wàllu miiras mu ni juróomi anam yooyu nag nga xam ne moom la baay di donne ci wàllu miraas moom laa la bëgg a limal su ko defee nanga ko jàpp ma limal la ko nga takk ko ngir mu bañ laa rëcc mu jëkk a tàmbali ne walil abi <clears throat> wala nga ne wastaqarra dana saxe a sudus sudus lil abi ñeel bàyyi bil ci amuk bànqaas bi ci njëkk mooy baay sudus la war a doon bu fekkee ne am na bànqaas bànqaas nag buñ ko waxee mooy doom wala doomi doom doom ji war a doon nag lañ wax waaye bu fekkee doom ji wërta doon mënta daq baay ndax ki nga xam ne wërta doon sifatan kooku du mën a dàq ki nga xam ne moom itam dafa war a doon su ko defee kon bu fekkee ne bàyyi doom am na waaye doom ji wërta doon masalan doom ji dafa nekk bi yéefar doom ji nekkub jaam wala doom ji nekk koo xam ne euh, dafa rey kooka xam nga ne wërta doon ginnaaw wërta doon nag mënta dox diggante baay ak euh, kii baay war a doon waaye bu fekkee ne doom a ngi fi nag ju war a donn wala sët bu bàyyi ci doom bu góor nga ne ibnul ibni wala bintul ibni kooka mën naa dàq bàyyi mu dem ci suddus bu fekkee doom bu góor la sax wala muy sët bu góor bàyyi moom suddus rek lay am du weesu sudus ba waaw bàyyi suddus rek lay am du wees sudus ba waaye bu fekkee doom ba nag jigéen la wala mu nekk sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom bu góor bàyyi day jël sudusam téye ba noppi bu jëlee sudusam téye ba noppi nag su ko defee la des bu fekkee des na mu daal di donn la des masalan ku faatu woon bàyyi bàyyi waaye bàyyi benn doom bu góor alal ji dañ koy def juróom benn xaaj buñ ko defee juróom benn xaaj doom bu góor moo juróom ya bàyyi day daal di teggib sam rek dem du toogaat di fa xaar leneen la des dañ koy daal di jox doom bu góor waaye bu fekkee nag doom ba dafa nekk doom bu jigéen wala mu nekk sët bu jigéen bàyyi dañ koy jox sam mu téye ba pare bu fekkee doom ba moom rek fa nekk te mënta jeexal alal ja baay day doon cëram ñëw doon ne la desaat ci tansib dana la ko wax ci kanam masalan ko faatoon bàyyi bàyyi ak benn doom bu jigéen bu la neexee alal ji nga def ko ñaari xaaj ndax doom bu jigéen nisif lay doon nga jox ko benn ba bàyyi itam dafay doon fardan wa tansiban kon nga jox ko ba ca des bu la neexee itam nga def ko juróom benn xaaj jox ñetti xaaj ya doom muy nisifam waaye bàyyi nga jox ko sudus ba ak la ca des ndax dafay doon fordan wa tansiban moom la da bëgg a wax ci bunt yi ci des maanaam ci satr boobu ci topp ci euh, euh, bayit bi moo tax ma ne wastaqarra sax na moom sudd moom baay mooy wastaqarra dana sax lil abi ñeel bàyyi asudusu sudus bil far'i ci banqaas <coughs> dégg ko banqaas nag waxoon naa la ko léegi mooy al ibnu wala nga ne ibnul ibni wala al wala nga ne bintul ibni lakinnahu wante baay nag moom yaasub dana asabaal maxa xayri dakar ànd ak kudut góor mooy li la doon wax léegi baay nag bu fekkee ne doom ji dafee nekk waaye doom ji nag wala sët bi euh, bi maanaa sët bi du góor wala doom ji du góor ni ma ko waxee woon léegi baay day doon cëram ba noppi la des mu doon ko ni ma la ko waxoon léegi ci baay bu fekkee dafay dajeeg doom bu jigéen wala baay daje feek euh, sët bu jigéen wala baay daje feek ñaari doom yu jigéen lum ci man di doon daal baay moom day doon nu cëram ba noppi bu desee la des mu jël ko waaye bu fekkee doom ba góor la nag baay moom mënta weesu suddus day jël as ab suddusam rekk te daal di dem bu ko defee wax na la kon bàyyi bu fekkee ne faru bu fi nekk bu fekkee faru mooy doom wala doomi doom bu fekkee li fi nekk du góor bàyyi mën naa donn ciram ba noppi la des mu donn ko ci asabal moo tax mu ne lakinnahu yaasub ma xayri dakar mu jàll ne wa huwa moom bàyyi aasibun aja asabal la bi faqdil farci ci ñàkk ñàkk bànqaas mu ne bàyyi dafay asabaal boppam bi maanaam bu ñu waxee si nafsihi mooy am na doole joo xam ne mën naa taxaw taxawaayu asabaal boppam ni nga xam ne doole ji doole ji doom bu góor amoon nga xam ne mën naa asabaal boppam xam nga bu ñu waxee asib bi nafsihi mooy koo xam ne sa dooley bopp doy na la ngir nga asabaal du ceegin ngay sukkandiku ci asabaalu keneen lu mel ne doom bu jigéen amul doole asabaal boppam waaye dafay ànd ak doom bu góor ngir doog a mën a asabaal mooy tax su ko defee doom boobu nag mooy baay moomu nag bu fekkee ne doom amut doomi doom amut kenn nekku fi bokk na ci ay darajaam wala bokk na ci ay mbiram mooy mu doon na alal jépp bokk na ci ay mbiram mooy mu doon na alal jépp moo tax mu ne waxoo moom baay aajibun aja asabal la bi del far'i ci ñàkk bànqaas bu fekkee amul kenn ku fi nekk. fay jël alal jëpp bu fekkee na nag boroomi cër am na fi boroomi cër am na fi daay bàyyi deesu ko tuddal ab cër bàyyi moom doom rek kay tax nga tuddal ko cër waaye bu fekkee boroomi cër dafay nekk yeneen yu dul doom lu mel ne mu faatu bàyyi jëkkër wala jabar nekk fi wala yaay nekk fi wala maam bu jige maam jigéen nekk fi ci wàllu yaay bu boobaa bàyyi dafay bàyyi bañ doon ba noppi mu doon la des masalan ku faatu woon bàyyi jëkkër ak baay ala ji dañ koy def ñaari xaaj jëkkër tegg benn muy cëram ndax nisif la doom amut baay moom day daal di teggi la des ndax daf koy asabal am na doole bu fekkoon dafa faatu bàyyi jëkkër bàyyi jabar ala ji dañ koy def ñeenti xaaj jabar moom day teggi ab rubu am ndax doom amut la des muy ñetti cër yépp baay daf koy jël bu fekkoon dafa faatu itam bàyyi ndey ak baay noonu la ndey moom sulus lay jël la des bàyyi moo koy jël bu dee maam bu jigéen la bàyyi itam dañ koy def juróom-benn xaaj maam jël sudus juróom ya des yëpp bàyyi jël ko moo tax mu ne bu fekkee ne boroomi cër des na fi bàyyi ànd naag boroomi cër bàyyi day bàyyi ba boroomi cër ya doon na ba noppi bàyyi jël la des moo tax mu jàll ne walam ye dikkul isqaatahu rotaluk baay fi sarci ci sariya baay moom du rot ci miiras mukk amul kenn ku koy daaneel waaw baay amul ku koy daaneel ci miiras nen ko benn mu jël sudus mooy gën ja néewi masalaam maanaam li muy gën doon ci miiras li ci gën a néew moom baay mooy sudus li ci gën a bari mooy tansib mooy asabal mooy jël alal jëpp bu wéetee moom kese moo tax mu jàll ne fa yaqusu dana jël moom baay as sudus sudus bu mat sëkk ñu cërale ko ko fi istigraaxi ci jeexal ahlal foroodi ñoñ cër ya almaala alal ja bittifaaq ci dëppoog borom xam-xam yépp ñu ne xattaa baay sax bu fekkee ne danga waxoon ci ginnaaw léegi na bu fi nekkee boroomi cër day bàyyi ba boroomi ya doon na ba noppi mu jël la des mu ne ah loolu de lii tax man ko mooy bu fekkee ne borom cër ya buñ doon ne ba noppi alal ja du jeex. waaye bu fekkee boroom cër yi buñ doon nee far alal ja day jeex kon in fokk bàyyi danañ ko tuddal ab suddusam masalan bu fekkeen dafa faatu bàyyi ñaari doomi jigéen bàyyi jëkkër bàyyi yaay bàyyi baay xam nga masala mi dafay départ ci dafay wéri ci duus ndax lu tax muy wéri ci duus ndax li tax muy wéri ci duus mooy rubon dafay daje ak sudus ginnaaw rubu ak sudus daje nañ nak bo sudus borom sudus dana teggi waye borom rubu du am du teggi bo defee rubu borom rubu dana teggi waye borom sudus du am ginnaaw rubu ak sudus buñ buñ dajé nak jangon nañ ci matnu nu rubu ak sudus fuñ dajé masalam in fok mu wéré ci dus li tax mu wéré ci dus moy ñom ñaar dañoo tawafuqo ci nisif ginaaw dañu tawaafaqoo ci nisf nak mom rubu' ak sudus ta atep tawaafaq lay atte moy da ngay jël xaajub kenn nga multiplier ko ci la desi morom moy antadri antadriba نصف الاخر من ان تضرب النصف الاخر بالكل بنصف بمعنى بالكل nga jël 2 moy nisfu rubu moy 2 nga multiplier ko ci 6 nga ne 2 fois 6 mu jox la 12 wala nga jël 3 muy nisbu 6 eh, nga multiplier ko ci 4 muy 3 fois 4 mu jox la 12 ci foofa lay man di wé mën a wére mu wéré ci 12 mom masalam bi mu wéree ci 12 ba paré nga daal di jël ñaari doomi jigen nga jox len sulusani sulusani xam nga ci 12 sulusani moy 8 nga jox ko 8 euh jabar jëkkër lu mu waron am rubu ndax doomi jigen dooma tax mu wara am rubu rubu 12 xam nga ne trois la léegi boo boolee trois ak huit boo ko génnee ci douze onze la benn rek moo cay des yaay jëlagut bay jëlagut yaay moom sudus la war a am sudusub douze xam nga ne deux la xam nga kon kooka ba nga ko joxe ba nga ko joxee ba nga ko joxee euh, ci euh, sudusam xam nga il faut moom benn des il faut nga sompal ko. waaye doo dooyam ci sompal yaay rek da nga cey daal di boole jàll sompal baay su ko defee moo tax masala mi dafay sompoo ba ci quinze moo tax gis nga kon alal ji bi mu jeexee baay duñ ne ko da ngay ñàkk ndax dañoo waxoon ca xaacida ba ne kuy xaaru des bu dara desul da ngay ñàkk baay nag fii du bokk ca xaacida boobee dafay xaaru des alal ji jeex na waaye du tax ñu daaneel ko ndax baay du daanu ci miiraas moo tax ba muy xaaru des alal ja jeex ñu sompal ko kon loolu mooy gën jaa néewi cëram mooy euh, euh, euh, six moo tax nga gis ne masala mi dafa sompo ba ci douze masala itam bu fekkonte ne baay mii li muy donn dafa ni dafa dafa matut sudus bi maanaam alal ji des na sax waaye lim des dafa matut sudus du kon alal ji dañ koy sompo ba tey masalan mu faatu won bàyyi ñaari doomi jigen bay jëkkër bàyyi bay xam nga ñaari doomi jigen mom sulusaani lañuy don doon xam nga rubu lay don ak sulus sulusani. xam nga dañoo def tabayun ndax sulusaani ci 3 lay bàyyi ko boo jëkkeen jëkk alal ji nga déparé ko ci 3 euh, doomi jigen yi mën nañoo tegg seen sulusaani waaye jëkkër mom du teggi ndax mënta génne ab rubu bo jek jek woon nga wirale masala mi ci 4 moy rubu bi jëkkër dana mën a teggi waaye doomi jigéen yee duñ mën a teggi ndax ab rubu mënta génne ak sulusaani moo tax da ngay ca àtteb tabaa yu neen la woon da ngay jël menn maanaam benn cër bi nga dóor ko ci moroom ja kon da ngay daal di jël sulus mooy trois sulusaani mooy ci trois lay génne nga def trois fois quatre mu jox la douze ba tey ba joxe joxee xam nga doomi jigéen yi sulusaani mooy huit ba mu amee huit jëkkër ab rubu am ci euh, euh, mooy trois xam nga léegi nga boole trois ak huit xam nga daf lay daal di jox onze te baay mi mi ngi war a am sudus te li des benn la te baay nag bu mat daa war a am sudus bu mat sëkk kon bu boobaa masala mi da nga koy sompoo ba ci fukk ak ñett baay moom ab sudusam wa dara waru cee manqué fii itam dañuy bañ ngeen ne baay da doon xaaru des rek benn des baay da koy jël ta dem déedéet bàyyi wërtam mankile absudus moo tax foofu gis na masala mi ñu sompoo ko bi maanaa ñu sompoo ko ba ci euh, treize su ko defee kon bàyyi daal mi ngi noonu loolu mooy ab attim ci wàllu miras kon su ko defee bàyyi gi noonu man li ma laat la mbiri bàyyi ni mi donne bi ci njëkk mooy dafay donn ci ñaari anam donn ci ñaari anam mooy bu fi ne bu fi nekkeeg doom bu jigéen day donn su dus bu alal jee desee mu donn la des mooy bu fi nekkee doom bu jigéen wala sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom bu góor loolu benn la ñaareel ba mooy doon gi nga xam ne dafay doon ci asabal mooy bu fekkee ne amul men amul kenn ko war a doon moo xam doom nekku fi wala doomi doom nekku fi jël gi mi jël alal jëpp loolu mooy ñaareel ja wala mu jël la des bu fekkee borom yi cër nga fa ñetteel ba mooy doon gi nga xam ne bàyyi daf koy doon ci ci cër kese kese kese nga xam ne du ko du ko mën a weesu loolu mooy kañ mooy bu fekkee nekk na feek doom bu jigéen ah, maanaam nekk na feek doom bu góor waaw wala mu nekk feek doomi doom muy el ibnu wala mu nekk feek ibnul ibni ñeenteelu xaala bi mooy bu fekkee ne dafay donn ci cër te cër bi mu war a donn nag mooy kañ mooy ba nga xamee ne alal ji dafa war a jeex dañ nekkoon toogal xaaru des mu toog di xaaru des ñu ne ah alal ji kat bu fekkee bàyyi dafa toog di xaaru des rek alal ji dafay jeex muy bi ma la mujj wax léegi nga xam ne kon dañ koy sompal alal ji kon bu boobaa bàyyi du ceeg na day toog di xaaru des waaye dañ koy tuddal ab sam juróomeel bi mooy bi nga xam ne bàyyi dafay nekk ak nday ak maanaam jëkkër ak nday ak baay wala jabar ak nday ak baay muy masal xaraawa yi ni yooyee insha allah mooy suñ bind bii nga xam ne mooy waaj a ñëw danañ ko ca leeral su ko defee kon bàyyi daal juróomi anam yooyu lay doon ne ñi yem foofu ba yeneen di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak topp te defal leen ko lu ci jub mbaaxu suñu borom tabaraka wa taala ak tawfiqam lu ci dëng suñu néew xam-xam la ak suñu ñàkk fasaha in uridu ila islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa